wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala mbokk yi ñu ngi sant suñu borom cant gi mu yellool di ko sant di sàkku ci moom ndimbal di ko ñaan mu jéggal nu suñuy bàkkaar te musal nu suñu mbon mbonu bakkan ñu wax ne ki yàlla jubal kooku mooy ki jub yàlla réeral ci maanu tamit kooku mooy ki sànq ñu ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom borom bi subhanahu wa taala di julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaanal jàmm xéewal ak mucc moom ak ay saxaabaam ak képp ku topp yoonam ak njubam ba keroog ba sënc gannaaw loolu ñu dénk suñu bopp di leen ragal yàlla ci jëfe ay digleem bàyyi ay tereem mbokk yi ci situation bu métti ci ay jafe-jafe ak ay difficulté yu jéggi dayo ginnaaw woote yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu jàllee ci ay at mu soob borom bi subhaanahu wa taala euh, mu daadi indi loo xam ni da koy dëgëralee woote yonente bi alayhi salaatu wasalaam ngir xawle na fàtteel coono ak xat-xat yi nga xam ni moom la woote lislaam jaar yàlla def ci moom xéewal tukki boo xam ni tukki bu historique la boo xam ne amul benn yonant wala benn malaaka bu jege yàlla boo xam ne yàlla defal na ko teraanga gu toll noonu muy tukki boo xam ne bu barkeel la tukki bu yàlla nangu commencé ci bërëb bi gën a sell ci kaw suuf jeexee fi gën a kawe ci kaw asamaan muy tukki li nga xam ne mooy rañaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam borom bi mu ne sell nekkal na borom bi nga xam ni moo yëkkati jaamam bi ràññaan ko jële ko Màkka yóbbu ko Jérusalem jële ko fa yóbbu ko ci kaw asamaan euh, yàlla mu ne jële ko Màkka yóbbu ko ci fële nga xam ne mooy masjidul aqsa tukki mu ne place boobu nga xam ne dañoo barkeel la te jubluwaayu tukki bi mooy won ko suñuy kéemtaan won ko suñuy kéemtaan ci guddi googu nga xam ne kéemtaan yu màgg la mu ne yàlla mooy aji dégg di aji gis mbokk yi tukki boobu naka la demee euh, lan lañ cay jàngat ak lan mooy xew-xew yi sa xew bu fekkee al isra moom mi ngi commencé Makka jeexee Jérusalem foofu la yem loolu la al isra tukki guddi la boo xam ni Màkka la commencé jeexee fële nga xam ni mooy ca Palestine ca Jérusalem bu fekkee miraaj bi muy reñaan bi mooy tukki bi tàmbalee ci baytul maqdis jëm ci kaw asamaan ba ca sidratul muntaha yonente bi alayhi salaatu wasalaam dem ba jege boromam di wax ak moom te amul benn intermédiaire bu jox ci diggante bi tukki boobu fi mu tàmbalee mooy yonente bi alayhi salaatu dafa nekkoon Màkka ci néeg am na riwaayaat yi wax ca néeg ba mu newoon waaye li wér moom mooy ci màkk la nekkoon ci kaaba gi euh, am waaju ko dikkal fekk ko fa muy jibril daal di xar dëndëm li tàmbalee ci suufu putu baatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba fi wàcc ci biiram mu daal di koy xar génnee xoolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di ciy sol def ci xikma def ci iman indil ko daaba ji weex tàll ñu koy wax alburaq ngoo xam ni bëtam fu mu gis tànkam àgg fa maanaam lu ko gën a gaaw yàlla bind ko fu bëtam xool rek tànkam àgg na fa loola yonent bi daal di war jibril daal di war ñu àndi wuti baytul maqdis bi ñu àggee baytul maqdis borom bi ci kàttanam ci mën-mënam mu dekkal yonent yi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di di jiite julli ñaari ràkka yu woyof yonent bi jiite leen ko julli daal di sëlmal mboolam yonent yi nekk ci ginnaaw mu doon seen imam gannaaw loolu yonent bi alayhi salaam génn ci jàkka ji jibril daal di indiwaat beneen ndab boo xam ne bii euh, ndab loo xam ne sàngara ci nekk indiwaat beneen ndab boo xam ne soow moo ci nekk nekk muhammad ñaari ndab yi tànn ci benn yonent bi alayhi daal tànn ndab li nga xam ni moo def soow jibril ne ko tànn nga li baax foofa jibril ànd ak moom ñu dem ci asamaan sa ci borom xam yi dañ ni daaba googu di alburaaq fa yem lan moo yéegal yonent bi ak jibril loola tegtal gu wér gu ñëw di wax ne lii moo leen yéegal amul waaye sunu boroom ci kàttanam moom moo leen yéegal nan la leen yéegalee loolu lu mu jagoo la moom yàlla subhaanahu wa taala foofu yonent bi ànd ak jibril ñu rañaan wuti kaw asamaan biñ ñëwee ci asamaan bu njëkk jibril daal di sàkku ñu ubbil leen ñu ne ko ko àndal yow la kan mu ne mën a jibril kan nga àndal man ma ak mu ne muhammad waaw ñu ne kooku de dañ ñëw moom lañ ñu waxoon ñu ko ubbil ñu daal koy ubbil dalal ko yonent bi alayhi salaam daal di yéeg fekk fa suñu maam aadama alayhi salaam adama dalal ko ne ko doom ju baax ji yonent bu baax bi agsi ñu jàmm sant yonent bi alayhi salaam jàll ca ñaareelu asamaan mook jibril ñu jibril sàkku ñu ubbi leen ñu ubbi leen mu yéeg fekk fa isa ibnu maryam fekk fa yaxya <clears throat> doomu zakariya ñu koy dalal ñoom ñaar daal koy ñaanal yiw ñu continuer jàll ca ñetteelu asamaan ñu fekk fa yuusuf yonent bi alayhi salaatu salaam ni Yuusuf ànd ak taar boo xam ni bu nit mënta melal la maanaam taar bu jéggi dayoo la yonent bi alayhi salaatu salaam gis ci yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam nee dalal ko daal di koy ñaanal ñu daal di jàll yéeg ca ñeenteelu asamaan ñu fekk fa yonent yàlla Idris alayhi salaam mu daal di dalal yonent bi daal di koy ñaanal mu yéeg ca juróomeelu asamaan fekk fa Haarun alayhi salaam mu dalal ko ñaanal ko. mu jàll juróom benneelu asamaan fekk fa Muusa alayhi salaam Muusa daal di koy dalal daal di koy ñaanal mu jàll ci juróom ñaareelu asamaan fekk fa Ibrahim alayhi salaam fekk Ibrahim mi ngi wéeru ci al baytul maamuur baytul benn néeg la bu nekk ci kaw asamaan boo xam ni kaaba gi ni mu nekkee néeg ci suuf jaamu yàlla yi di ko wër di ko tawaaf néeg boobu ci kaw muy baytul maamuur malaaka yi noonu lañ koy wëree di ko tawaaf bés bu nekk juróom-ñaar fukki junni malaaka ñoo fay dugg malaaka bu fa dugg ba génn dootoo fa dugaat ba bés maanaam ku xas ba dugg dootoo fa malaaka bu ko xas ba dugg dootoo xas ba dugaat loolu moo tax kon kenn xamul malaaka yàlla yi niñ toll bés bu nekk juróom-ñaar fukki junni soixante-dix mille malaaka dañ fa dugg malaaka bu dugg dootoo fa dugaat loolu day wone kon wa maa yaalamu junuuda rabbika illaa hu foofa yonent bi alayhi salaam nuyoog Moussa jàmm santeeg moom euh, daa di jàll ay mbir yu kéemaane xew fa yonent bi alayhi salaam daa di jàll Jibril na ko fii laa mën a yem yonent bi avancé ba ci sidratul muntaha foofa yàlla wax moom jox ko li nga xam ne moom mooy julli yoo xam ne juróom fukki julli yi war a julli ci ci bés bi bi mu wàccee ba juróom benneelu asamaan Moussa laaj ko lu mu fa jële yonent bi alsa wax ko ne ko jox nañ ma juróom fukki jëli Moussa ne ko dellu ci sa borom nga laaj ko mu wàññi ko ba mu woyof sa xeet àttanuñ loolu yonent bi delluwaat ci boromam delluwaat yàlla wàññi ko ba muy juróomi julli ne ko juróomi julli la ginnaaw dellu yu bëree bëri ci diggante bi ba mu mujj sax juróomi julli ne ko julli la yoo xam ne du ci dindi dara daaji ne ko waaye nag yëgal ni juróomi julli la yoo xam ne julli bu nekk fukk laa koy fayee fukk boo ko dóoree ci juróom mu jox la juróom fukk yonent bi alayhi salaam wàcc ko ñaata la mu ne juróom mu ne ko delluwaatal ñaan sa borom mu wàññiwaat ko mu ne ko dellu naa di jaabante ba am naa kersa delluwaat sama borom pour mu wàññi ko foofa yonent bi alayhi salaam dégg ab baat wax ni naa ba wéyal lii woyafal naa li nga xam ne moom mooy samay jaam yonent bi alayhi salaam dellu si Màkka suba daal di jot. bi su ba jotee abu jahlu romb ko mu toog mu ne ko ah, muhammad lu xew loo amee tey lu bees tey mu ne ko ah, bigg dañ ma rañaan jóge naa fi dem Jérusalem jóge Jérusalem dem ci asamaan ñëwaat mu ne ko yàlla jëlee na la fii yóbbu la foofu yëpp ngir xëy del siwaat nekk ak ñun mu ne ko waaw mu ne ko est-ce que su ma demee wa waa Quraysh ñëw wax leen ñëw ñu dajaloo sa kanam li ma wax nii dañ ko wax waa Quraysh ñoom ne ko waaw abu jahlu sawar ci lool dem campagne dajale waa Quraysh yëpp ñu daal di ñëw mu ne ko Muhammad waxal li nga ma waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko jaaral fi mu jaaroon rañaan nañ ma fi biig ci guddi ma dem Jérusalem jóge fa dem ci asamaan ñëwaat wala bi mu ko waxee ñenn ñi seen bopp attanu ko ñu jaar fa daal di ñi jotoon a gëm am ci ñu génn daal di mbir mi yéem leen lool waa Màkka jël mbir mi def ko mbirum sinema di ko wëree ci mbedd Màkka yi di ko tasaare ak di wax naan Muhammad nag léegi nangam ak nangam li mu doon wax nag léegi leer na ne du eh, ay mbiram gën naa doy waar yàlla nattu leen abu jahl ne ko ñun de waa Màkka xam nañ baytul maqdis lu mel dem nañ fa miin nañ yoon wi am nañ ci ay xibaar est ce que yow mën nga ñoo wax wàllu baytul maqdis yoon weeg jàkka jag la fa aju yonent bi alis na waaw <coughs> ñu commencé ko laaj muy tontu ñu àgg ci di ko laaj mbir yu gën a jafe gën a compliqué yenn riwaayat yi wax ni yàlla sunu borom def image bu baytul maqdis mu nekk ci kanamam yonent bi alayhi salaam di xool luñ ko laaj mu tontu luñ ko laaj mu tontu luñ ko laaj mu tontu ñu ne ko en tout cas question yi ñu la posé moom tontu nga mais xabaar bi moom du dëgg xabaar bi moom du dëgg gëmuñu la demoo fi loola kenn xamatul lu muy nuru euh, yonent bi alayhi salaatu salaam foofu la jeexaleeg ñoom mbokk yi histoire bi bu gudd la dañ ko tënk lool ndax yaatu gi mu yaatu. ñu mën ci jàngat ay jàngat yu màgg ay leçon yoo xam ne mën nañ ko ci tiire yu bëree bëri waaye daañ ci tànn lenn wax leçon yi ci mën a tiire bëri na ba ci njëkk mooy ngëm-ngëm ak pas ne voyage boobu yonent bi def jóge Màkka dem baytul maqdis jóge fa ci kaw asamaan ñëwaat loolu dëgg loo xam ne jurit waru ci sikki sàkk loolu ngëm-ngëm la masalab aqida la boo xam ni jurit da war a gëm waru ci sikki sàkk beneen bi mu gëm ne mbir mi kéemtaan la mujiza la ci mujizaat yi yàlla di jox ay yonentam ak ay nit ñu baax ñi loola mu defal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour tester ko ngëmu ñi jotoon a gëm ak aussi xàmmee ci ñiy naafiq ak ñi dul naafiq loolu moo tax bi mbir mi ñëwee dëgg gi bi mu ñëwee ñu séddalikoo ñaari groupe ñi gëm ñiy wetti ñi ci gëm seen gëm dëggu yàlla yëkkati leen ci ay daraja ku demee ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kaa gaañi bañ paree ci Muhammad dem ci moom ne ko sa waa ji nangam ak la wax mu ne su moo ko wax dëgg la yonent bi alayhi salaam tuddee ko as-siddiq loolu doon aussi loo xam ni yàlla daf koy def di ko nattoo ñi gëm yàlla waaye mën ci génnee ñi nga xam ne seenu ngëm dëgg na ak ñi nga xam ne seenu ngëm dëgguwul ñaareel bi daañu ci gis yërmande yàlla ci jaam ak dimbali gi muy dimbali ñi nga xam ne ñooy ay way féeteem ak ñiy woote jëmale ci yoonu yàlla saa bu nekkee ci ay difficulté yu métti ba jaaxle yàlla dina indi lu mu leen dëgërale dina indi lekk-lekk lu mu woyofale li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nekk te ndaxte tukki bi ni ngi ñëw ci jamono joo xam ni yonente bi alayhi salaam ak saxaabaam lor yu métti leen doon dund màkk yu jéggi day lool borom bi indi ko teralee ko yonente bi beesalaat daal di koy beesalaate li nga xam ne moom mooy seen pas-pas ak li nga xam ne mooy seen yéene ak dëgëra leen ko ci li nga xam ne mooy seen wàllu diine ak yokk li nga xam ne mooy seen kóolute diggante ak ñoom ak seen borom ñetteel bi mooy euh, rañaan gi jóge Màkka dem baytul maqdis nga xam ne baytul maqdis mi ngi woon ci loxo ñeneen ñu dul julit lu tegtal la woon ci ne jàkka ji dana mujj ci loxo julit ñi loolu mooy li fa yonent bi jaar tegtal la ci ne jàkka ji dana mujj ci loxo xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye it yëkkati bi ko yàlla yëkkati ba mu àgg foo xam ne benn mbindaafoon bu yàlla sàkk mosu faa àgg mooy won ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo gën a kawe ñëpp waaye diinam yi mooy war a kawe mboolem diine yëpp moo leen di kawe te yàlla dina feeñal diineem ba mu kawe ñeenteel bi mooy julli gi ko yàlla jox wala julli gi ko yàlla jox mu jiitee ko mboolem yonent yi tegtal la ci ne te yonent yooyu ña nga won ca ca barzaq tegtal la ci ne na ñoom bu ñu dundoon niñ toppee yonent bi ci julli gi noonu lañ koy toppee ci seen wàllu aduna loola yi tegtal la ci ne yonent yooya dañuy junj seen nit muy yahudi ak nasaraan yi nga xam ne dañoo bañ a topp yonent bi ci ne kii ñun ni ñu ko toppee te ñun ña nga ca aalamul barzax yàlla dekkal na ñu topp ko te yéen mi ngi seen biir mi ngi seen biir ni ñu ko toppee noonu ngeen ko war a toppee juróomeel bi moo daan ci jàngat ni màggaayu mbirum julli mboolem jaamu yàlla yi ko indi jox ko julli yàlla yàllaa ko yëkkatil boppam daal di koy àggale foo xam ne kenn mësu faa àgg daal di ko koy jox sans intermédiaire kon julli yàlla daf ko daf ko daf ko yoonal ci jaam yi pour mu doom lu leen di yëkkati bi mu koy jox yonent bi da koo yëkkati jox ko ko daf koo yoonal aussi pour julli di yëkkati jaam yi di leen jegal seen borom loola saa bu jaam yi taqee ay bàkkaar taq li nga xam ne moom mooy ay taq-taq ay tilim tilimu mooy yàlla loola julli dafay ñëw pour daal di koy raxas yëkkati leen ñu gën a seen borom mbokk yi ëpp ci nit ñi tey juñ julli julli comme ni ko borom bi subhanahu wa taala yoonale ci respecté julli gi ci mbooloo mi respecté ponki julli ak warugari julli ak dundal julli gi mu doon ruu mu bañ a doon rek genre gymnastique ay mouvement yooyu def di sëgg kësi bi waaye dund gi dafa war a dund nga yëg ci ngay yëg cafka li nga xam ne mooy cafka julli loola bokk na ci parce que julli gu dëggu ci nit ki daf koy protéger ci tàbbi ci lépp loo xam ni tilim tilim la mooy yàlla la ak ay gàkk-gàkk juróom benneel bi dafay fàttali jullit ñi ne fa ko yàlla jaarale muy al masjidul aqsa di baytul maqdis loola place booba partie la ci ngëm-ngëmu jullit boo xam ne waru ci génn tey it responsabilité la euh, boo xam ni jullit ñi dañ cee am wàll muy bërëb boobu jullit dañ ci am wàll am ci yitte war ci am yitte ci bàyyi ko xel bu baax gëm ni dafa bokk ci dundu jullit bi pas-pas jullit bi muy bërëb bu sell boobu muy masjidul aqsa nga xam ne tey yahuud yi juif yi dañ koo nangu ci loxo jullit ñi ñu ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu setal ko ci seen loxo dellowaat ko li nga xam ne moom mooy jullit ñi mbokk yi xew-xew bi mu ngi am laata yonente bi alayhi salaatu wasalaam di gàddaay jóge màkka dem madina borom xam-xamu taarix boo dellu ci téere yi di jàng ñu wuute ci ban dat la amoon ñenn ñi ci ñoom dañoo wuute ci at bi wuute aussi ci weer wi ñenn ñi ci ñoom ne mi ngi amoon ci juróomeelu at ci gàddaay ñenn ñu ne déedéet mi ngi amoon ci weeru rajab yu ñu nekk ci li nga xam ne mooy fukkeelu at ci ci fukkeelu at ci bi yàlla yónnee yonent bi ñenn ñi mi ngi amoon ci ramadan weeru koor ci li nga xam ne mooy ñaareelu at ñenn ñi ne mi ngi amoon ci shahru muharram wala ci rabiul awal ci ñetteelu at bi yàlla yónnee yonent bi wax yi yëpp boroom xam-xam siira yi wuti ci wax ko mu nekk ci téere yi boo fa delloo da gis ni amu ci dalil bu ñëw ci alquran wala bu ñëw ci sunna bu leer buy wone ni xew-xew bi ci taa ci temps ci ci bi la xewa bu amoon yitte rek alquran tudd ko bu amoon solo lool am lu ci tege alxuraan du ko bàyyi dana ko tudd wala yonent bi dana ko tudd ci sunna bu doon lu wér waaye jaamu yàlla da cee nekkul moo tax xam kañ la xewoon jaamu yàlla nekku ci euh, ajuwu ci loolu moo tax loolu dafay wane kon ni bés bi dañ koy jàngat jàngat njëriñ liñ ci mën a jàngee dem daal di koy pratiquer lu ñuy feetu du lu ñuy jagleel ay jaamu yàlla wala ay julli wala ay mbir nekkul loo xam ni lu ñu war a jagleel ay ndaje la loolu dafa bokk li nga xam ni dugal ci diine yonent bi loo xam ne moom dugalu ko ci bu amul njëriñ du ko bàyyi moom moo koy njëkk a moo tax kon dafay leer njuumtewu ñuy feetu guddik 27 ci rajab ne dañuy feetu wala dañuy Euh, xewal li nga xam ne mooy guddik riñaanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam loola ki koy feetu keneen mën naa ne man bi may feetu mooy juróomeelu at ba keneen man bi may feetu mooy muharram ba su ko defee ay feet yu bëri la ñuy am loolu moo tax bu doon lu ñuy feetu feet ci ci diine yàlla moo koy décrété wala yonentam du nit mooy toog di ko décrété amul sañ-sañ boobu loolu moo tax bu fekkoon lu baax yonent bi defal def ko ay saxaabaam duñ ko bàyyi defuñu ko mbokk yi kon njub li gën ci njub mooy njubu yonent bi alayhi salaatu salaam te bokkul ci njubam feetu guddi gi nga xam ne ci lañ ko rañaanoon li yées ci mbir yi mooy lu ñu sos lépp lu ñu sos bidaa la bépp bidaa réer la mbokk yi ñu ngi bi subhaanahu wa taala ci turam yu rafet ak ay melokaanam yu kawe mu delloo li nga xam ne mooy suuf soosu di baytul maqdis suuf soosu di al masjidul aqsa mu delloowaat ko ci loxo jullit ñi génnee ko ci loxo yu tilim yooyu mu nekk muy loxo yahudi rabbana atina fi dunia xasana